jërë ngeen jëf mbokk yi yéen ñi nga xamante ni yéen a ngi ci site internet bi di bawal info point net bawal info point net site la boo xamante ni ñëpp ràññee nañ ko ci Sénégal waaye rawatina région bu Diourbel rawatina fii nga xamante ni nag fi la ñuy waxee muy Touba bawal info site la boo xam ne askan wi moo ko tax a jóg di jox askan wi ngir ñuy wax seen xalaat ak di wax li nga xam ne moo leen naqari ndax am réew boo fi nekkee da nga war di wax sa xalaat euh, li nga xamante ni info point net li may wax nag mbir la moo xamante ni ñu bari ñu nekk ci département bu Mbàkke ñoo ngi koy naqarlu ñoo ngi koy ñaawlu comme ni ma koy ñaawloo ak ni ma koy naqarloo li nga xam ne mooy journée de l'élevage muy bëccëg bi nga xam ne moom lañ jagleel wàllum sàmm gi département bu Mbàkke di dalloo xew commune bu Kayal mu nekk bëccëg boo xam ne bu am solo la ndax sàmm am na solo ci am réew waaye li nga xam ne nag moom lañ gis maire yi nekk ci département bu Mbàkke di ko waajalee xew wi di ko waajalee bëccëg bii nga xamante ni moom lañ jagleel wàllum sàmm gi waajtaay bi dalul xel amul lenn luy firndeel ci waajtaay wi kane président Macky Sall bu dikkee ci département bi danañ ko wax dëgg danañ ko wax fulla danañ ko wax farata danañ ko wax li nga xam ne moo naqari département bu Mbàkke danañ ko wax li nga xam ne moom la waa département bu Mbàkke di wax ci suuf bisub sàmm la de waaye occasion la war a doon ci maire yi nekk ci département bu Mbàkke ak kilifa yi ñu wax Macky Sall li nga xam ne mooy jafe-jafey askan wi nekk ci département bu Mbàkke département bu Mbàkke dafa bokk ci département yi gën a ndóol ci Sénégal département bu Mbàkke ñu baree bare tey buñ soñoon suba di élection locale bañ jële fa seeni maire ndax amuluñ leen benn njariñ département bu Mbàkke département la boo xam bari dañ koy jëwee Macky Sall di wax ne amul benn considération bu mu jox ñi nga xam ne ñoo nekk ci département bu Mbacké am na benn kilifa bu ma si doon waxtaanal bu mag bu nekk APR dëkk ci commune bu Mbacké mu may xamal naan ma Macky Sall ma ngi recevoir yeneen gox yépp ba mu des ñoom responsable yu mag yi nga xam ne ñoo nekk ci département bu Mbacké mu ne Macky Sall recevoiru leen laaj leen seen xalaat ak lan mooy jafe-jafe askan wi loolu noonu dafay firndeel wala dafay jox dëgg ñi nga xam ne ñooy wax ne département bu Mbacké considération bi leen Macky Sall war a jox jox joxu leen ko te fii tey bëri na ay responsable yoo xam ne ñoo ngi wax ne lu jëm ci mbirum ndombay tànk Macky Sall yeneen gox yi la gën a farataal ka département bu Mbàkke lu jëm ci ay mbiru nomination ñu bari sax xam nañ ko loolu jërul ñu si sori waaye lu jëm ci mbirum politique ñoom ñiy jàppale Macky Sall ak Macky Sall ñoomu nen la askan wi nga xam ne ñoo nekk ci département bu Mbàkke nag ay sénégalais lañ comme tous les sénégalais dafa am loo xamante ni si wareef la ñu defal leen ko Macky Sall nag buy ñëw ci département bu Mbàkke ñi nga xam kilifa yi ñoo war a am seen fulla ak seen fayda wax Macky Sall li nga xam ne mooy jafe-jafe askan wi moo gën ñoom ñuy xalaat lu jëm ci mbirum politique ndax li nga xam ne moom lañ gis ci ndaje yi nga xam ne waa APR jot nañ koo dajee lu jëm ci mbirum mobilisation kese presque lañ fay waxtaanee au lieu que ñu bind ab mémorandum liiral ko Macky Sall wax ko jafe yi nga xamante ni moo am ci département bu Mbacké ak li nga xam ne moom lañ koy jëwee lu dul loolu askan wi danañ leen gën mere te nag li nga xam ne moo am ba des mooy ñépp xam nañ ne département bu Mbàkke programme bii di programme PUDC phase 2 bi lañ digoon département bu Mbàkke 14 communes yi nga xam ne ñoo nekk ci àll bi ndax PUDC bi commune yi nekk si àll bee ko tax a jóg phase 2 bi lañ waxoon waa Mbàkke app ba ñu leen joxoon passé woon na bu yàgg ba yenn ci ay maire demoon amul lu leen naqari doon ko wax xalif général de Mourides ba mu boole leen ak Serigne Bassirou Abdou Khadre te ba léegi nii PUDC bi dañuy wëy rek di dalal xelu maire yi nga xam ne ñoo nekk ci département bu Mbàkke te seize communes yi quatorze communes yi presque élection yu fi jaar Macky Sall dafay gagné te ñooñu amul lenn loo xamante ni war nañ fa mën a sukkandiku ba voteel ko ndax gisuñu ko fa tey département bu Mbacké communes yi nekk ci àll bi lu jëm ci mbirum fajo mbirum njàng ay école ak yu ni mel ay bërëbu fajukaay wala lu jëm ci ndox mu sell wala courant boo xamante ni bu yaatu lay doon ba nit ñi nekk ci sécurité wala ay formation yoo xam ne defal nañ ko jigéen ñi bañ mën a am ci lu ñuy yëngatu wala ban infrastructure bu mag moom la lañ mën a wax ci département bu Mbàkke commune bu Mbàkke bii rek seen stade bi ñoo ngi siy jooy suba ngoon guddeeg bëccëg ñu mel ni lu leen tànqamtalu commune bu Mbàkke maa ngi dégg bërki dem benn responsable boo xamante ni tey ab directeur général la muy ŋàññi maanaam ñàkk jumtukaay ci mbirum faju gi nga xam ne Mbàkke ñàkk na ko kon loolu dafay jox dëgg ñi nga xam ne ñooy wax ne wàccuwaay bi Macky Sall war a jox département bu Mbàkke joxu leen ko waaye ñi fi nekk tamit fullaak fayda bi ñu war a am wax Macky Sall dëgg duñ ko ko wax encourager askan wi ci wàllum sàmm am na solo waaye tamit fexe ba askan wi amaat espoir ba askan wi amaat xel mu dal ba fexe ba askan wi bu ñu yeewee seeni jur mën a nelaw ba yàndoor mën a am kaaraange loolu tamit lu am solo la ci te tey Macky Sall na ko leer na lu mu mën a wax ci journée de l'élevage te jógul ci askan wi ba ñu am seen kaaraange askan wi amuñu fitu yar lu toll si juróom fukki xar yu baax képp ku ko yar ci département bu Mbàkke sa bakkan ma ci xottu gerte sàmba buy fa lañ lay fekk ñoo la ëpp ay arme ñoo la ëpp ay jumtukaay jël say xar yóbbu boo ko xëccëg moom ñu leb saw fan sàcc gaa ngi mel ni tuleeg màlla ci département bu Mbàkke voté woon nañ si ab loi waaye dafa mel ni loi boobu noonu France dali xëddéen te nag département bi sax seize communes la waaye gis nañ tey ñaari communes yi nga xamante ni chaque jour bu Macky Sall demee élection da koy ñàkk presque muy commune bu Touba commune bu Mbàkke dafa mel ni responsable yi nekk foofu sax ñoom ñoo bëgg a jël moom mooy xew yi te mbirum sàmm buñ koy wax ne yeneen quatorze communes sax ñoo gën a nekk ci foofu nga xam ne Macky Sall chaque jour dañ ko fay dóor muy gagné sax yeneen quatorze communes yi léegi nag président Macky Sall quatorze communes yii nekk ci département bu Mbacké wàccoo nañ ak moom wàccoo ak moom weesuwul joxoo leen PUDC bi deuxième phase bi élection ñëw nga dalal seen xel ñu voteel la kon bu élection passé président Macky Sall fexeel ba nga xam ne li nga xam ne mooy seeni jafe-jafe nga jéem koo xam ngir taxaw ci kon mbokk yi li lañ amoon luñ leen wax ci site internet bii di bawal info net jërë ngeen jëf jàmm ak jàmm